salaamaaleykum mbokk yi am internet Dakar live ñu ngi la ñuy jaar di am mbégte saa su ne fii ci baatu xol bi Dakar live TV waaye tamit di jaale ñi nga xam ne jot nañ ñàkk seen bakkan ci jaamaarloo yi fi jotoon a am Euh, par ma voix l'équipe de Dakar Live ñu ngi jaale njaboot yooyu yoonu yëpp waaye tamit di massaw ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqule euh, di massaw ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti ci Sénégal wërngal këpp waaye tamit di waxaat alhamdulillah alhamdulilah euh, di sant aussi tamit suñu guides yi parce que dox nañ ci jéego yi am solo que ça soit mu nekk église bi wala kilifa diine yi Touba Tivaouane Medina Baye Ndiassane Thiénaba ku lim da ngay juum eh, di sant sénégalais yëpp jàmm lañ la ñu xamee ñun senegal donte am nañ droit génn manifester wu mais Sénégal réewu jàmm la. Eh, dañuy def nag benn jàngat par rapport ak li fi jot a xew démb démb le ministre de la justice eh, Malick Sall dafa génn wax benn wax boo xam ne yenn sénégalais kenn ku nekk rek yaa ngi ciy wax sa xalaat xool noo ko jàngatee. Euh, nu ñuy def rek mooy ñu déglu euh, wax boobu mu génne woon wax ko foofee ca France 24 bañ ko invité par téléphone euh, mu indi xalaatam ci li nga xam ne moo xew ci li nga xam ne mooy manifestation yi waaye tamit nekk ministre de la justice wax mbir mi nan la ñu déglu ko ñëwaat def si jàngat. son, son arrestation a a parce que son arrestation est liée et à pour l'essentiel il y a des gens qui sortent pour lui. Mais pour l'essentiel, madame, je peux vous assurer qu'il y a un ras-le-bol parce que les gens n'avaient. Vous savez, il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi toute la, toute la semaine, ils sont à l'entraînement, dans les, dans, effectivement, dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week étaient dans les stades. ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt un an. Je vous dis tout simplement, madame, que la réaction de Ousmane Sonko est une réaction que je comprends. Que je comprends. Alors très rapidement, Très rapidement, au-delà de, de, ce cas Sanko, ces émeutes, euh, vous l'avez dit, sont un signe d'une véritable crise au Sénégal, d'un ras bol euh, que comptez-vous faire Le président Macky a annoncé un allègement du couvre-feu, mais visiblement, ça, ne sera pas suffisant. Que comptez-vous faire pour, euh, améliorer la situation de cette jeunesse Je crois que le chef de l'État a déjà exposé des perspectives. Ce dont il parle est déjà existant. Mais tout la a été paralysé, a été gelé pendant un an, madame. Ce que je vous dis, le Sénégal, ce qui se passe, ce n'est pas propre au Sénégal. mondial mbokk yi yéen a déggandoo le ministre de la justice Malick Sall euh, jàngat bi mu def ci li nga xam ne moo jot a xew Sénégal ginnaaw ba mastoo euh, ñi nga xam ne ñoo si am ay gaañu gaañu ak ñu si génn àdduna moom mu ngi xam ne ne euh, manifestants yi génn di manifester wu nekkul ñeen ñunul ay mbër. Euh, Sénégal nag bëri na mbër macha allah euh, te mu ngi xam xamle sax si biir woo xam ne mbëri dañoo toog ay at wala lu ko ëpp bëriwuñu euh, te loolu moo nekk seen gagne-pain te mënuñ cee toog loolu nag ñooñu ñoo am seen cri de kër génn di manifester wu waaye ñii manifester wu ñii ñëpp ay mbër lañ jàngat bi nag mooy. Euh, ministre de la justice d'après man wala sénégalais bu nekk noo ko xalaatee euh, moom dafa jël mbir mi joxoñ ko ñi nga xam ne mooy mbëri euh, mbëru làmb yi parce que bu ñu ne mbëri rek Sénégal mbëru làmb la sa xel di dem lu tax mu wax wax ji en tant que ministre de la justice peut-être daa am fu mu ko teg après dina si indi leeral comme que dafa dem ba ca télé tubaab yi woot ñu woo woo ko mu wax par téléphone ñëpp di ko dégg te àdduna wërngal képp koy dégg mu ne ay mbër ñoo génn di manifester wu ndax dañoo toog at lu ko teg te bëriwuñu seen cri de cœur nag la ñuy génn di manifester wu nekk ci mbedd Dakar yi boo ko doon jàngatee kon da ngay jàpp ne ñu doon manifester kon neguñu ay partisan Ousmane Sonko wala ñenn ci jeunes sénégalais yi ñoon wax ñu ñoo génn léegi mu ne jàpp ne ay mbër lañ léegi ñenn ñooy mbër yi définition boobu noonu dina am ñaari point yi ñu ko teg soit sénégalais la tuddee ay mbër wala mbëru làmb yi lay wax waaye moom ci biir waxam moom mbëru làmb yi la joxoñ direct mbir mi nag sénégalais kenn ku nekk yaa ngi koy jàngat en tout cas mm, yéeme na en tant que ministre de la justice ñu woo la laaj sa xalaat ci réew mi nga génn nga ne mbër yi ñoo génnoon di manifester wu ndax dañoo toog ay at bëriwuñu te amatuñu fu ñuy uutee li nga xam ne moo nekk pour mën a sutura woo ñu génn wane seen cri de cœur waaye li ci ambaam daal moo ne mbër yooyu aussi tamit kenn demul ñu des ndax génn nañ wax parce que mun nañ jàpp ne tuuma la Euh, d'après les informations ñi ngi dégg ne Gris Bordeaux moom mi nga xam ne moo jiite mbëri moom génn na wax ne ñoom dañuy porter plainte ki nga xam ne moo nekk ministre de la justice euh, yóbbu ko ci yoon donte moo yor justice du Sénégal waaye moom dañ koy yóbbu ci yoon ndax daf leen tuumal euh, li ci am am daal mooy dinañ leen toppal mbir mi indi leen ko ami internet li ñuy tëjee daal mooy sant yàlla bu baax a baax ndax jàmm delluwaat na ci réew mi te Sénégal réewu jàmm la jàmm rek moo xaj ci réew mi mun nañ manifester wu mun nañ génn waaye fu mu nii nag nañu teg politique ci suuf commencé waat suñu activité réew mi doxaat cent pour cent ndax nit ñi sonn nañ xiif nañ mar nañ waaye tamit di ñaan aussi autorité yi ngir yàlla war a sululaay muy opposition bi ak parti au pouvoir rek comme munti doon rek na ñu yeew dimbale sénégalais lambda bi ndax bakkani ci rot bëri na lool te lii yëpp dara war a ko lu ñoom liy njig ñooy njàgg depuis 1960 ba tey Sénégal day dundee li nga xam ne moo nekk nii waaye tamit ministre de la justice eh, li mu wax nii kaa la faa ñu topp ko parce que comme nee na waaye ci am ba am daal moo ne mbëri ñoom génn nañ ki leen jiite génn na te nee na da koy porter plainte bi ñu ko amee foofee ci Zik FM euh, ki nga xam ne moo nekk Gris Bordeaux ah, mbokk nag lii rek lañ indi woon pour ñu waxtaanee ko kenn ku nekk aussi am nga droit nga wax sa xalaat ci mbir mi ak ñu jàngat ko ñu ngi la sant di leen gërëm di leen jox dox daje ba beneen yoon fii ci baata xol bi Dakar Live TV ngeen jëf